li lim wax metti na ma mais tontu bee ma gëna metti parce que Mélenchon mom limu gëm taxaw na dëggal ci bopam <coughs> Mélenchon mom taxaw na ni man ma njëkk a ñu légiférer pour bind ak ak yelef droit wu gor jigéen ci France joxé ko mom limu gëm wax nako ko mhm. bu doon mbër mani mom sampu na taxaw ci ay tankam ci sa arène yow parce que yow la fekk si kan moo génn saaku yi waxul lam daan wax c'est Ousmane Sonko le discours de Ousmane Sonko a été ambigu nuancé reculable arrière génn saaku yi parce que xamewuñ lii Ousmane Sonko Ousmane Sonko sur ce sujet da cay jël position yu leer daf ni moom Ousmane Sonko li gëm ak parteem moy buñu falo de dañuy criminaliser homosexualité wa avion bii naaw porté criminalisation lan moko ko ba ci saretu mbamu tolérance ak gestion chute bobu la bëgg comprendre en fait de la criminalisation à la tolérance tolérance pour ñi ñuy dégg ci wolof bokoy djégélé ak mo moy genre masla moy ñun Sénégal danañu maslaa ak góor jigéen ça c'est pas vrai ray nañu góor jigen bërki dem boo njaay góor jigéen foo ko bëgg a suul am problème ku fi am mbokk mu doon góor jigen bokoy koy dang koy neub ku fi nek góor jigen dang koy neub la loi dafa punir acte contre nature baatu Sénégal ñi ngi maslaa ak góor jigen c'est pas vrai du deug donc tolérer gi Ousmane wax boko ko indi ci olof tay moy muñal wala maslaha moy toléré lolu amul comment Ousmane Sonko peut descendre de peut peut peut atterrir jóge ci kaw criminalisation mu gëm ko tolérance c'est ça le vrai problème donc man c'est la réponse qui me pose problème.